min bayti zawjiha ci kër jëkkëram ci lu dul ndigalu jëkkëram te yonentu bu waxee rek nga war koo déglu ndax wallaay du dara lu mooy ne yàlla daf ko xamal la lay jëriñ mu wax la ko ak lay lore mu wax ko rek ku fi wuuteeg ndigalu yonentu mook malaat bu wuuteeg waxi docteur yam feebar rek ci lay dëkk te ku dëkk feebar dëkk ci naqar ku wuuteeg waxu yonantu ci joono rek ngay dëkk ak jafe-jafe kon jigéen ñi nañ déglu lu yonantu wax ñu def ko ndax ñoo góor ñi benn lañ yàllaa leen bind moom ñu war a jaam jigéen bu génnee këram te jëkkëram mayit ko ndigal lu cay topp mu ne laanataha rëbb na ko al malaayikatu malaaka yi xataa tarjaa lu mooy mu dellu aw tatuuba wala mu tuub ñaar rek kay tax malaaka yi bañ ko rëbb mooy mu delluwaat këram gëm jógeewul wala mu tuub même bu delluwut mu tuub ba jëkkëram d'accord ca nekk waaye su génnee dem benn barab fekk jëkkëram gërëmut génn googu rek malaaka yaa ngi koy rëbb bu ko jëkkëram gërëmee nag même bu ñëwagut baax na kenn rëbbu waaye bu dee jëkkëram d'accord mais dellu si waat na ci kër gi ñibbi ci ak kooku malaaka yi ba nañ ko rëbb kon jigéen jigéen na kër jëkkëram ñaar yi mooy tax mu mucc dellu wala boog jëkkëram gërëm ko bu loolu malaaka yaa ngi koy rëbb mooy lan mooy dañuy ñaan yërmaande yàlla sori waa ji te yërmaande yàlla kum sori sa dara du baax xam nga bëri na kuy dox ci àddina fekk yàllaa ko rëbb bu jëflanteeg sàmm sàmm xor ko mu ne mu ne mu ne man daal ku ma jëflanteeg mu xor ma boo amee xam-xam sax bu ko xamee doo xam lu ko neex mënul def mënul xam dara lu ko jëriñ xam nga lu tax yàlla daf ko rëbb bu la yàlla rëbbee dana la jox dara waaye du la jëriñ daf lay jox lu mu la jox dara xañ ba neex ba parce que yërmandeem la la sori te yërmande mooy ma jàmm mu loolu baaxul de loo dugg mu dëgër bu ubbeekoo tamit nga am ci fitna rek rëbbum yàlla ngoog yàlla nañ si yàlla musul jigéen ju génn nag te jëkkëram moyit ko ndigal malaaka yaa koy rëbb di ñaan yàlla yàlla soril ko yërmaandeem kon jigéen ñi nañu toog seen i kër jëkkër yi lu mooy ñu may leen ndigal ci génn loolu la yonent bi santaane rawaaw solo na xadis bi ak tabaraani tabaraani andi bi ci téeréem ba wa qaala woon xuseyn bun maxsan bàjjenu xuseynu bun maxsan wa zakarat mu ta mu tudd zawjaha jëkkëram nabi ñoo yonent bi sallallahu alayhi wa seet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee yonent wax ko noo def ak sa ah, maa ngi ci góorgóorlu bu baax daal tudd mbiru jëkkëram fa qaal yonent ne ko unzuri xoolal min ayna anti minhu noo mel ak sa jëkkër loolu lay firi min ayna anti fan nga nekk minu ci moom xoolal noo mel ak moom fay noo nag moom jënnatu ko mooy sa aljana wa naaru ki jënnatu ki mooy sa aljana wa naaru ki mooy safara lii la ko yonent wax mu ah, lu mën a xew mooy sa mooy safara jëkkër ju la gërëm loolu mooy bànneexu àddina waaye moo lay may aljana ci alaxira kon jëkkër ju ju la gërëm mooy sa aljanaay àdduna mooy sa aljana safara maanaam jigéen borom këram mooy aljanaam mooy safara maanaam mooy neexal àddunaam alaxira wala mu naqadil ñaar yëpp moo tax jigéen war a tànn kan la war a ànd ak hmm? bu baax a baax comme ni ko góor di tànde koo xam ni mooy sa aljana mooy sa safara wax ji nag wax ju matal la diw mooy sa aljana mooy sa safara mooy mën na laa fitnaal mën na laa noppal jigéen borom këram moo koy fitnaal moo koy noppal waxuñ le waxuñ ne leneen mooy aljanaam de moom jigéen wala safaraam de yonentu waxul leneen de da ngeen dégg xaddis yi bu baax a baax waxul ne sa xarit yow jigéen mooy sa aljana mooy sa safara waxul say waajur waxul say mbokk waxul say nangam sa borom kër kon luy defar sa àdduna ak sa àllaaxira yëpp sa borom kër la nekk luy yàq sa àdduna ak sa àllaaxira yëpp sa borom kër kooku war nga ko tànn bu la ne sa àdduna dana neex sa àllaaxira dana neex yàlla naa la may dund gu neex may la njaboot gu barkeel may la jàmm may la tagg wu rafet ndax sa borom kër gërëm na la nga génn àdduna yàlla ne la ay aljana di naa lan ndax sa borom kër gërëm na la ah loolu jaru loolu jaru ko waaye bu la meree te fekk ci dëgg la la mere wax naa la lislaam faalewul ku mere nit ci tooñ yaa tooñ ba pare yaa mer yàlla du la faale waaye bu fekkee jigéen ñi dafa def lu mu def ba borom këram mere ko àddinaam dana naqari njabootam mën nañ koo sonal mën naa dugg safara bu dee mën naa dugg safara yal nañ ci yàlla musal kon xadis bii dana dëggal li gars yi di wax ne doom ja ndey ja jëlee na loolu jar naa xoolaat léegi-léegi doom ja bàyyi ja la waaye nag jigéen bu bonee kon doom mën naa woon parce que doom ju bon ci safara àddina la bokk <laughs> yéen ne jëkkër xol nii rek mooy safara bu ko jàppee aljana ji nga xam rek ak safara si nga xam ca la bokk gaa waaye sa borom kër mooy sa bànneex mooy sa naqar boo jubalee yàlla jox la bànneexi àddina jox la bànneexi alaaxira bànneexi àddina doom ju baax ci la boo jubalut yàlla teg la fitna àddina teg la fitna alaaxira kon jigéen na góorgóorlu ci borom kër pour mbiram baax rawaaw solo na xadis bi an nasaay nasaay lii laa la yonent wax ne jigéen ju nekk na xool mooy kan ci borom këram ku nekk xam nga sa bopp yow jigéen ji daal sa borom kër mooy sa aljana mooy sa safara ci àddina ak alaxira léegi yonent wax bàjjan Xuseyn bun Maxsan rawaaw solo na xadis bu an nasaay nasaay waan abdulahi bun amrin jële nañ ci abdulahi bun amr de yàlla na gërëm allah we naan umaac ñoom ñaar qaala mu ne qaala wax na rasulullahi yonent yàlla bi salla yàlla doole xawal allah wel alayhi si moom wasallama ta doole ko mosal yonent bi nee na laa yanzuru du xool allahu yàlla ilaa imraatin jëm ci jigéen joo xam ne laa tashkuru du gërëm li zawjiha ñeel jëkkëram wayyete moom jigéen ji laa tastaxni du doylu anhu wali jëkkër ji yow bàyyi woo sa jëkkër te doo ko bàkk doo ko gërëm la fa téye ba nga bëgg nekk ak moom loolu moo tax nga war koo gërëm hmm? doyaloo ci sëy bi te doo gërëm sa borom kër yàlla du la xool bët bi yërmande maanaam du la yërëm yow dana la gis de waaye day mel ni ku la gisut xam nga ku ñëw séddale ñëw ba ci yow mu tëb dafa mel ni gisut la pourtant gis na la waaye waaye gisut la bu ñu waxee yàlla du la xool nag du xool nit bët bi yërmande maanaam du ko yërëm kon jigéen joo xam ne du gërëm jëkkëram te doyalut ci jëkkër ja yàlla du ko xool bët bi yërmande kon jigéen ñi lislaam nee na ngeen gërëm seen jëkkër yi gërëm nag tagg ci la bokk jigéen dafay tagg borom këram di ko bàkk fu mu toll ne sama borom kër lan may defal loolu la ko lislaam sant tagg gi ci tous les la loolu lislaam ku ko dégg xam ni ngay doxale ci tous les jigéen dafay tagg xéwal yi koy borom këram di defal ci biir nit ñi ak ci bitti nit ñi waaye koo xam ni foo toogee rek wax lu ñaaw sa borom kër lu ñaaw rek ngay wax teew teew buñ la waxoon génn sëy bi nga ne bëggoo génn xam nga ne yàlla gërëmul la de waxal lu baax loolu la war sa diggante sa borom kër na tagg jëf koy borom këram di defal na tagg jikkoy borom këram na tagg yaramu borom kër gi sax da ko war a tagg waaye koo xam ni jàkkaarloo sa borom sa jikko naa ko yow li nga ñaaw xool sa bëri nu wengee noppi daa kotumu moom noppi daa kotumu jigéen du ko def ah boo sa borom kër bu yàggee mu jéppi la mais taggal yaramam taggal doxalinam doxam sax boo ko mënee tagg tagg ak refa dox dégg nga bu dee kaala sol nga tuddee ko jekk kaal bu mbaxana nga tuddee ko jekk mbaxana jékki faas rafet bakkan ah, loolu la lislaam santaane <laughs> bu leen ree maanaam xadis bi dafay jàngal nu jigéen war a doxalee ak borom këram waaye di xas rek ci kër yoo xam ne di xas rek bu yàggee moom du rafaale te tànk yaa ngi koy xas rek yàlla gërëmul kon jigéen du wax ayib bu borom këram du ko wax dafa mel ni gisul ci borom këram ayib ayib gi lu mu tuuti tuuti nag hmm? lu mu tuuti tuuti bu mu ko xeeb daal lu mu tuuti tuuti si ayib boo ko waxee sa borom kër gi rek yow jamono boobu yàlla faale la xanaa nga tuub waaw ah, xam nga ni mën mu sa bopp bu sew bi yow loolu noo ko waxee sa borom kër yow tuddal lu rafet la rek bul tudd bopp bu sew. dégg waaye nag wala hunna mislu alladi alayhinna bil maaruf yegg see guñ ci war jigéen ji ci yow rek ci yow góor gi tamit del bàkk del tagg sa soxna loolu moom loolu la lislaam sant dégg nga mm-hmm. axrajoo génn moo génn xadis bi yonent jàngal na lépp sallallahu alayhi rek waaye daal xadis bi gën mënoon naa ko gën a sarxan moom wa qaala ana salla yàlla dol xollah wala alayhi salaam wa sallam dooleko mosa yonentu nee na isa daa bu hooyee ar rajulu góor zawjatoo soxnaam li xaajati ngir soxlaam góor gi am na soxla ci soxnaam woo ko ak soxla bu mu mën a doon faltaati na ko dikkal wa in kaanat dina nekk ne ala tannuuri ci fuur maanaam di lakk mburu am dañoo lakk méccam lakk mburu mooy mécc bi gën a jëfe ci mécc yi maanaam boo ko commencé doo ko boo koy ba mu yàqu boo doon lakk mburu mi nga bàyyi ko dem benn soxla ñëwaat dafa yàqu que boo commencé boo nekkee ci fuur bi commencé rek il faut nga continuer ba jàpp na kon mm-hmm. waaye yéen mosul laa woon loo jàpp jàpp jàpp jàpp bu dee borom kër soxla bàyyi la nga doon def yëpp dem nekk ci soxlaan ba mu jeex nga doon continuer ci la nga doon def dina lakk mburu nga xam ne boo ko wuyujee de faj soxlaam ba sa mburu ma dana yàqu dama wuyuji ko soo delluwaat ci lakk mburu ma waaye jàpp xaaral ma pare xaaral ma nangam xaaral ma nangam kooku mu ngi mooy yàlla jigéen bu nekk di wax xaaral xaaral xaaral kaay ñëw naa defal def na noppil noppi na demal dem naa toogal toog na lii de da ko yàlla sant leneen lu mu def nag moo ko defal boppam comme ku ko sant waaye du yàlla ak ko yonantu kon jigéen loo jàpp jàpp jàpp jàpp bu la sa jëkkër soxla ak soxla bu mën a rek ndem du moo yàlla rek demal fekk ko dile da ngaa nekk ci fóor di lakk mbur maanaam dile da ngaa jàpp daal loolu lay waaye jigéen tey ñoom yaakaar nañ ne buñ xawee jàpp leen seen borom kër xooyee am nañ droit nekk ci la ñu nekk ba pare door ko oyu déedéet waaye jigéen ju muus ju dégg diine bu doon def dara nga xool ko borom këram ne ko diw da nga gis li muy taaj rek dem wuy bu dee déggu diine da mu toog xel mi naa ko mottali xaaral ma xaaral xaaral maa ngi ñëw damay nangam kooku déggu déggu diine. wala jigéen ñi war nañoo jàngal seen diine diw bàyyi li ngay def dem wuy ci lii la lislaam santaane rawaaw sol na xadis bi an nasaayi nasaayi wa tirmisi ak tirmisi wa an abi xurayrata jëlee ci abu xurayrata te de anu ci moom qaala wax na ne qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doon xool te musul ko abu xurayratu na yonentu nee isa daa bu xooxee arajulu góor imraatu soxnaam ila firaash yi jëm ci lalam maanaam góor gi dafa woo jigéen ji pour sëy ak moom falam taati yi dikkalul ko jigéen ji bañ fa baata mu fanaan moom góor gi xat baana di aji mere aleyha ci jigéen ji laanat ha rëbb na jigéen jooju al malaayikatu malaayika yi xataa tusbiha fekk bu mu xëyee beneen riwaaya ne fekk ba koy jëkkëram di gërëmee kon boobu moo gën a yaatu ndax ñaareel bu xëy jëkkër ji bu xëyee mën naa feex xëy bu feexee rek yàlla ji gërëm ko waaye tant que xolam seddu rek yàlla malaaka yi ñu ngi rëbb jigéen jooju jigéen ji jëkkëram da ko soxla pour sëy moom jigéen ji bañ jigéen ji nga xam ne malaaka yaa ngi koy ñaanal yërmande yàlla sori ko fekk bay suba teel di jotee beneen addis ne fekk bay jëkkër ji di kon jigéen su ko sox daf ko war a wuyu ci lu mooy nag mu feebar wala mu am ngànt comme mu am mbërëg wala yu demee noonu su boobaa nag ah, am na ngànt moom su bañee benn malaaka du ko rëbb ndax ku feebar dafa feebar dégg nga waaye sonn bu mu tee mu wuyu ko ak yu demee noonu rawaaw solo na xadis bi al buxaari buxaari wa muslim ak muslim kon jigéen ju baax mooy jigéen joo xam ne saa yu ko jëkkëram soxlaa rek moom mu wuyu ko même bu dee moom dafa sonn même bu dee moom sentirul loolu même bu dee moom xelam nekkul ci sax waaye jëkkëram soxal na ko rek koy jox boppam xanaa mu feebar dégg waan Muaz bun Jabal jëlee nañ ci Muaz doomu Jabal radiyallahu anhu na gërëm ñëpp saxaaba yonentu lañ ani nabi mu jëlee ci bi sallallahu alayhi na yonentu nee na xaala yonentu wax na ne laa tuzi du lor imraatun jigéen zawjaha jëkkëram fi dunya ci àdduna illaa qaalat lu may wax na zawjuha zawjuhu soxnaa meneen xóori si jigéen ñi ñuul bët ya alxiina yérey bët ya xóori ayni sa jabar ji ci àddina bu la jabar ji sa xóori ayni yi ma ngay kaas kon ñun ñu ngi lay gis jabari xóori ayni yi kenn ku nekk rek bu dee aljana nga jëm sa jabar yi ñoom xam nañ la te ñëwagoo ñu ngi lay xool nag boo amee jabar ci àddina jabar ji lor la ñu commencé xuloo jigéen dafay xuloo la jëkkëram daa jigéen joo xam ne luñ def jëkkëram yoonam nekku si mais xuur xay nii ñoom walaale seen jëkkër rek ñu commencé wax kon benn jigéen du lor jëkkëram ci àdduna lu may jabar yi ci àllaaxira xuur xay ñu ngay kaas naan ko laa tuusihi bul ko lor xaatalakillaahu yàlla na yàlla xalak la loolu lay xuur xay nii wax ñu ko yàlla na la yàlla bul ko lor fay namaa woo naka moom daxil gan la ànd ak sax yusiku léegi an yu faariqa ki mu tàqaliko yow ilay eh, naa jëm si jëm si ñun loolu la ñuy wax naan ko kii yow daf laa gane si nii rek tëkkul foofu léegi mu bala fi ñëw si ñun loolu la ñuy wax lor gi ngay lor seen jëkkër ci àdduna moom mu ngi leen di métti wóoraay nii ñoom xamuñ lor borom kër ñoom ñoom topp rek moo tax boo loree seen jëkkër yi ñoom ñi nga aljana waaye ñu ngi gis seen borom kër yi xam nañ la boo loree rek jëkkër wóoraay bi ma ngay mer di wax ak jigéen àddina bi di xuloog moom di xuloog wujjoo bu ko lor yàlla na yàlla xaral la gan la rek daf laa gane si nii léegi mu bala fi ñëw maanaam dëkkul foofu fii la dëkk moomoo ko ñun ñoo ko moom loolu lay wax hmm? su ko defee loolu moo waral jigéen bu mu lor jëkkëram ndax ñaanu wuraay ni yooyu mën na ko dal dégg Euh, jigéen ñi dafay kaasal jëkkëram comme na ko mën waaye jigéen àdduna nag bu baaxee ëllëg mooy nekk sa jabar ci àllaaxira dégg kon jigéen ci àdduna bu baaxee ëllëg mook borom këram ñooy continuer sëy bi kër gi du ganam rek waaye bu dee jigéen ju bon la moom hmm, borom kër gi gan la ci moom rek léegi mu bokk dem jëli jabar yi nga xam ne jabaram dëgg mooy xaw waaye léegi nga nekk koo xam ne ci àdduna gan la ci yow rek da ngeen a koo gane si nii rek parce que bu ngeen di dee rek séparé wu. dafay wax ne pikk ak peel moo ñuy tàqalee ñaari xale yu sëy loolu la ñuy wax pikk ak bu leen wax loolu pikk ak peel sax waru sëy ndax sëy dafa war a continuer ba aljana ku takk soxna da ñaan yàlla continuer moom ba aljana loolu moo gën bu ngeen dee tàqale ko. bu ngeen tàqalikoo fu ngeen jëm man naa am kii safar la jëm kii aljana la jëm loolu baax na ku nekk da ngay ñaan yàlla ki nga àndal ka ànd ak moom dugg aljana te fu ngeen àndee dugg aljana ñaar yéenay bokk dëkk aljana ah nag wax nañ sa borom kër bu génnee àddina nga amaat jëkkër moom jëkkër ji nga mujj a daal si sa dund kooku ngay nekk ak aljana te nga njëkk a nekk nag moom bu nga demee aljana yaa moom nekkatul rek waaye daal ñaar ñu nekk bët dee taq rek taqale leen buñ dajawaati aljana dañuy continuer sëy bu leen safara taqale yal ci yàlla musal ah ñooñu moom duñ continuer loolu nag moo tax nga war a ragal xadis bi xadis bi xuuraay ni dañ ne kii gan la ci yow rek léegi mu bala ñëw ci ñun ah buñ la waxee loolu bu ko yàlla dëggalee moo ne yàgg borom kër gi du ngeen bokk dëkk aljana kon yaag borom kër gi du ngeen bokk dugg aljana gan la rek àdduna rek moo leen boole léegi mu bala fi dem ci aljana ci wuraane yow nga dem sa wara te ko wuraane yàlla mën na ko dëggal moo tax jigéen waru lor borom këram ndax bu loree borom këram rek waxu xooraay mën naa dëggu ci moom te bu dëggoo ci moom rek yàlla dana ko teqaleeg borom kër googu balaa yàgg rawaaw solo nu ko tirmisi tirmisi moo nettali xadis bi su ko defee in uriidu al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaahi alayhi tawakkaltu réew ne wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh